jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi fii ci biir jumaay Touba ci fii tudd Daaray Kamil nekk fi ak sëñ Abdou Khadim jóob nga xam nag euh, dinañu leeral ci lu fi mata leeral ci njariñ ñu sëñ Abdou Khadim Diop ñu ngi lay nuyu ci Tektal TV. noo ngi leen di nuyu bu baax a baax. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaw euh, ni ko sëriñ bi waxee rek fii nu taxaw mooy Daaray Kamil. nga ne daari kaamil li ko waral mooy Serigne Touba bi muy dem ci géej gi dane woon damaa yóbbaale woon alxuraan waxumalaa géej gi sax waaye ba mu daata dem sax uh, Mbàkke Kajoor ak uh, gànnaar ak yëpp dafa dafa doon dafa amaloon daari kaamil ji buñ xëyee jàng kaamil ñaari kaamil suba gi ginnaaw ginnaaw bu ginnaaw tisbaar ñu jàng kaamil bu ñu defee loolu nag loolu la ko toppee ba bi mu dikkee njaareem lool loolu lañ fa saxal. Hmm. biñ ñëwee Touba gii nag ñu boo ñu fii daara ji nekkee moom jàkkaarloog barabu Serigne Touba bi jàpp barabu boppam bi nga xam ne boo génnee ci jàkk ji. Hmm. jaa ci ci daara ji barab bi ngay ja barabam bi ngay jàkkaarlool màkk boo jiwee ci génnee ci barabam bi màkkit ja kii daari kamil ngay jàkkaarlool màkk hmm. niñ fiy tax saxe saxe nag mooy xalifa bi ci boppam mooy xalifa bi fi ne mooy tànn ñaar fukk ak juróom-ñett ndax ñaar fukk ak juróom-ñett nit ñoo koy jàng ca jamono sañ Touba ba nëgë ni ñaar fukk ak juróom-ñett ñu nag buñ xëyee danañ jàng ñaari kaamil suba gi bu ginnaaw bu ginnaaw subaaree ñu jàng kaamil bu ginnaaw takkusaanee ñu jàng kaamil bu ko defee bu buñ ko buñ amee juróom ñaari fan loolu mooy dil siwaat ci sunub lim defe naa ne bu boo ko dee seet eh, ñeent ba muy ba muy juróom-ñaari yoon ñaar fukk ak juróom-ñett lay doon mooy doon mooy doon mooy doon sunu ci nga xam ne ay bis ju ne kon noonu lay demee nga xam ne kon loolu secret sëñ bi la tolloog arafi Tuubaa it nag léegi loolu nag luñ lu sax la doon loo xam ne amut bër amut dara waaw bisub tabaski ak bisub koreek bisub lu man di doon moom faaw dañ ko fi jàng moom amut benn bis bu muy génn moom waaw loolu daal mooy li nga xam ne ci gàttal mooy li nga xam ne mooy saxuwaay yi ñu fi sax du fi jàngit maanaam loolu dong mooy doon sunu liggéey ak yori daara di jàngale yooyu waaye mënuñu cee rax benn liggéey ndax koo xam ne boo xëyee na nga xëy si bu ginnaaw si baara nga xëy si bu ginnaaw takk seer nañ nga xëy si doo ci a boole leneen waaw loolu daal moom lañ ci mën a wax ci gàttal ci ni ñu daal mm-hmm. waaw. kon daal fii au lieu que exposé kaamil yi lii mais jàng bi nga xam na que tey àdduna bi yëpp bu noppi woon Touba moom mi ngi def ci li ko war ci alxuraan njàngu alxuraan du fi mas a raf mukk du fi mas tumuraanke ndax bis bu set ñu jàng ko fay yoon waaw kay boo mos a dégg dégg boo déggee ñu naan bis sàngam nañ nañ nañ bisub alxuraan nañ jàng nangam fekk na nu sax ci bu ñu jàng fii kamil ci ci daara ci jumaa ji bu ñu jàngee ba noppi léegi nun nun noo ngi continue suñu jàng mu ca nun dun duñ bàyyi dañuy sax ci nan nan koy jàngee rek nun sax ci ndax loolu am na yuñ ci wax yu bari sax ne sëñ bi wax na ko ci waaye loolu lépp yëf yu baatin la mm. li ci li ci li ci li ci am daal mooy noonu lii doon saxal la loo xam ne duñ cay duñ cay jóg mukk mukk mukk lu mën a xew du ko du ko fànq moom mm-hmm. ñeenti kaamil yooyu moom lu mën lu mën a xew rek du ko du ko du ko fànq ñi koy ñi koy jàngit eh, ñi koy jàngit du caagee ne dañuy jékki rek ñu ne diw diw demal dugg bu ñu demoon ba yàlla da ko def ab dogalam kenn manque ci it te mm. dañ koy yëgal xalifa ba fa nekk xalifa bu ci bopp mooy tànn kam fay indi yóbbuwaat ko mm-hmm. waaw léegi amul damay dem Dakar sama doom ñëwal maak yooyu yëpp amu ci ñëw xëy si rek jàng si xëy si jàng rek waaw xam xam naa ku ku koo xam ne nag dem nga moom mu war tey ji da ngaa tawat ndax da mun tawat ñàkk mm. moom doo mën a xëy si mm. waaw moom waaye ku xëy si wutit mën nañ laa jàngal sab jukki wala boog nga am koo xam ne ku ñuy xam lay doon ku maandu koo xam ne sa doom lay doon wala dara xam ne nii nag day mokkal alxuraan doon noonu duñ ko def rek koo xam ne ku jot dikk mu nga yebal ko ca bis bi nga mënut te loolu ñàkk a a koy waral te ñàkk a gi du weesu loolu du càngee da ngay demee soxla naa naa mënuma déedéet da ngay am loo xam ne ngaa wéré di ndax loolu mënut a ñàkk waaw wala nga am xew woo xam ne ko ñàkk si sa mbokk gaañu moo xam ne sa kër la wala yooyu sa doom wala nangam yooyu mooy yooyu rek mooy tax waaw ngàntu lay dund waaye du bëgg a dem béréb sàngam kon kon na na kii ndax moom ku ku dikkuloo nit ñi fi nekk moom danañ ko mën a jàng moom waaye nag waaye du tee nag teew gi moom ñëpp sax dañuy sawar ci teew gi du caagee ne moom da ngay bëgg a kii ñëpp a sawar ci teew gi waaw waaw daal jërëjëf sëñ Abdou Diop kontaan nañ bu baax a baax nga ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ko wér ak njaboot sëñ Tuubaa gi waaw waaw baax na koy baax na jërëjëf baax na liggéey lu rëy li sëñ Abdou Samati nga ñaanal ñu ko wax ku baax ko nag koo xam ne moom ku mat a jàppale la ndax fi ne day waxuma laa kii waaye day luñu ak di seet loo xam ne ci yoon wi lu ñu war a waxtaane la war a wala wara lu a def mu di ca mu di ca mu di mu di ci participer di ca def. waaw fan rek maay dégg ci forage yi ni mu ah, gis nga ni ci waxee ak ci kii. waaye mhm. sëñ Mountakha sax gërëm na ko ba yónni na ko ab oto. ndeysaan loolu lépp waaw rafet bu xam nga ni kooku loolu. Mhm. kooku kii te moom oto ba sax fi ne eh, kii moom la ko gënaloon moom mu jox ko ko. waaye moom ndax jox ba yu bari. la ko gënaloon moom mooy mooy mu jox ko sëñ Mountakha waaye sëñ Mountakha di ko ko jox. da mhm. kon mën na koo jàppe barkeelu waaye doonul loo xam ne da koy yàkkamti. waaw moom la ko gënal mooy muy seet wata boo xam ne ndax wata yi muy jox suñu muntaxaa day day wata mm. ko ko waaw mais waaw góor sëñ Tuubaa lay tekki yoon loolu doxin woo xam ne mm. noo ngi ciy sant bu baax a a baax waaw bu a baax a baax kon jërëjëf euh, sëñ bu baax a baax fii mooy Daaray Kaamil kon ngeen gis kaamil yi nii léegi da ngay dégg ñi naan Daaray Kaamil fee ak fii différence ba boo ko leeral lan nga ci leeral loolu nag moom li ñu koy leerale weesut xam nga les sëñ bi daata ko defaroon mm-hmm. ne léegi da bëgg xasaay di yéeg ak yëpp mu def ko ci ak ak téere yi ginnaaw noonu la defee nag ñaa ñu ne ak ginnaaw tudd nañ ci alxuraan ak yooyu ñu ne kon nañ ko tuddee daaray kaamil ñu def ko daara daara daaray kaamil waaye bibliothèque lañ lañ fa doon bindoon sax xam ngeen xam ngeen bibliothèque mooy lan moom xam ngeen ko ak ak kii waaw waaw bu ko defee ñu buñ ne daaray kaamil nag daaray kaamil ji moom mooy ji nga xam ne ci ñuy mooy daaray kaamil ji mag ji moom waaw jee it nag dencukaayu téere la boo xam ne sëñ bi daata ko fa defoon ngir sàmm ci téere yi ñu mm-hmm. ñuy wax sëñ Moustapha Diatara moo fa nekk sëñ Moustapha Diatara waa moo moo fa nekk moo moo jiite waaw sëñ Moustapha Diatara mm-hmm. waaw moo ko jiite waaw Moustapha Diatara moo ko jiite mm-hmm. fii déedéet kii fii ki ko jiite daa daa da ngeen a fekk mu dem sëñ Muntaxa Jaxate doomi sëñ am surtout Jaxate la sëñ Muntaxa Jaxate waaw moom moom doomu sëñ am sëtu jaxate moo ko jiite waay waajuram ak waajur yu sëñ laat ak sëñ son yu ñoo bokk ndey ak waay waaw sëñ am tax jaxate kon ñëw nañ ci barab bu tedd daal jërëjëf ñaanal la tegtal ci wax na yàlla yàlla dellul xéewal bu baax a baax a baax rek te teg nun ñëpp ci ak jub ci dara ji Serigne Touba eh, def na nuñu def ci noonu ak yokk àdduna ak àlaaxira waaw barke Serigne Touba jërëjëf kooku mooy sëñ Abdou Khadim Diop kontaan bu baax a baax ak Tektal TV yéen àndaloon euh, docteur Wade Baye Massamba Diop euh, Petit Sow soxna May Diop euh, ci réalisation bi kon lii mooy njëriñ ñu ngi ci biir Daaray Kaamil ci biir Jumaay Touba lii ngeen gis nga xam ne que njàngum alxuraan mu dul dakk moomul noppalu ci wuy ci ndigal ñoo xam dañuy tànn bu baax a baax lii mooy njëriñal màggal lii mooy njëriñal jotaay bu baax ñun ci lii la ñu dox te fas yéene ci dox jaajafal sëñ Abdou Samad Mbacke bu yàgg fi loolu te ànd ko wér sëñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimul axlaax yàgg fi loolu te ànd ko wér sëñ Abou moom sëñ Fallou moom sëñ Jiir moom sëñ Fallou yàgg fi loolu te ànd ko wér kon jërë ngeen jëf mbokk yi sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te ànd ko wér eh, xewal dikk loraa ngi dakk lii mooy lu baax ci réew kon Touba moom royukaay la ci lépp jaajëf